jéego yi nga xam ne ni moom la ñu nemmeeku ci xarala yu bees yi xibaar yu ñuy siiwal daa gën a bëre naam loolu day tax ba ku nekk mën a jot nu mu gën a yombee xibaar waaye faaw ñu saytu ci anam yi nga xam ne ni moom la ñuy joxe yooyu la xibaar. lii yëpp dañu ko war a encadrer ndax dinañu waxaat responsabilité ak liberté. loole moo nar a nekk yoon bi ngir am déontologie fexe dal di sàmmonteeg dignité nit ki moo tax sooy wax ci moom danga war a indi ay vérification maanaam nga xool ba xam sa source wóor na ci jamono ji nga xam ne ni mbaalu jokkookaay yi bëri na lool ku nekk jàpp ni fu mu toll nii taskatu xabaar nga. tout ce qu'on peut faire c'est leur donner des conseils lépp lu ñu mën a def rek mooy jox leen ay conseils ngir wax leen ñu moytandiku joxe xibaar bu wérul ndax nag ay sanctions sax mën na la caa fekk boo daanoo ci yenn ndëgg sërëx yi moo tax dëgg la mën nañu def éducation ci média déjà chez les collégiens chez les élèves cetera. loolee tax ba ñuy amal saa su ne ay waxtaan lu ci mel ni salon du campus ngir won ndaw ñi solos xam ni nga xam ne ni moom la ñuy tànnee xibaar bu wér ak bu wérul. et donc pour une première participation. man nag mbetteel laa am ci sama bokk gu njëkk ndax xale yi intérêt bi ñu wane ci liggéey bi nga xamante ne ñun moom la ñuy def. à la profession que nous exerçons. ñu ne ci ay waxtu yi nga xam ne nii xibaar bu nit ñi di jot mën na tax ba léeg ñu soppi melokaan ba tax na mu am solo ngir ñu saytu yooyu la xibaar nan lañ koy joxe waaye it xamal nit ñi nan la ñuy seggee xibaar bu wér ak bu wérul